li ñuy war a jëkk sant yàlla mooy réforme boo xamee ni tey dafa nekk proposition de loi ñëw ci assemblée nationale bépp kuréel politique bu bokk ci assemblée nationale rafetlu ko loolu defe naa bi Sénégal tàmbalee am wujje politique ñu nangu ko 1960 ba tey mi ngi soog a am ndax proposition de loi bu jógee ci député képp bépp député ak foo mën a bokk nga ñëw tey nangu ni.

à la constitution bi lolou moy première raison bi ñaareelu raison bi moy dañu def référendum xam nga loi toujours dañ koy voter par les députés wala ñu def référendum bi ñu le référendum président Macky Sall waxone qu'il dafa bëgg une évaluation politique publique yi ñukoy Nationale. def ci assemblée nationale lolou nek ci biir constitution bi liko wara a saytu di comité d'évaluation des politiques publiques il fallait ñu nous ko ci biir règlement intérieur ñettel bi mooy ku ne xam nga ni am réew day dox ndax Sénégal bu fekkee ni dafa amoon lu fi xew ñu defoon fukki commission ak benn dem ba yàgg ñu naan pétrole ak gaz dafa fi feeñ war nañu wut commission boo xamee dafay saytu loolu ndax bu ko saytoo dina ko gën a mën a toppatoo ba njariñ li ci Sénégal yi bëgg wala xam-xam biñ ci bëgg wala leeral bi ñu xamee ni moom soxla nañ ko ci loolu nu muy doxee ñu mën leen ko indil euh, yu mel noonu nag su fekkee am na ñu koy def ci règlement intérieur kuréel yëpp juboo ci dama jàpp ni lépp lu ñu war a def daal mooy rafetlu ko xam ni itam tey wax dëgg yàlla am na woy woo xam ne jib na fii ci assemblée nationale te mën nañu naan woy woowu mosu fee jib ba assemblée amee ba tey.